dafa nekk aada ci sa yu fetu indépendance ñëwaatee ñu fi fi ci direction de la formation ñu gën ko xamé ci école nationale de la police ngir tapal ay raaya ci turu njitu réew di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ay fonctionnaires de police yu ràññeeku ci seen liggéey ci ay at yu bëri ci seen kanami mbokk ci seen kanami xarit waaye ci seen ay kanamu collègue ñu war leen a sagal joxe leen en exemple di ñaax ñeneen ñi nga xamante ni ñoo nekk ci liggéey bi ñu rey ci ñoom ngir bis ñëw ñoom it ñu mën leen a décorer police nationale dañ leen di jaajëfal di leen wax gàcce ngaalama seen liggéey ci réew mi rafetlu nañ ko ak fan bu mu mën a doon ci li nga xamante ni mooy warugaru police gis nañ ni nit ñi bu ñu mënee nelaw ba yandoor mën a doxi seeni soxla mën a tamit am yenn xeetu kayit yi bépp sitoyen di soxla mu mel ni passeport walla carte d'identité c'est parce que policier moo taxaw jug di def liggéey liggéey bu rafet boobu ci njariñu askanam liggéey bobu nak ngeen nek mu doon aada fi ci suñu réew ñu am police bu reuy am ngeen sas wo xamanteni weyel ko waru garle ci yeen li ci firnde moy gis nañ défilé bu rafet biñu téwé tay ci njitalu son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ñu gis force de défense et de sécurité waye personnel civil yi am ci taxaway bu am solo ci bobé boobile défilé waye police nationale desul ginnaaw et gatché ngalama ñom gis nañ sen taxaway gis nañ sen doxalin gis nañ sen fulla ak sen fayda ci ni nga xamanteni mom moom ngeen ci kaw engin yi bi ngeen di dox muy défilé à pied bi aussi gis nañ ni ngeen ci taxawé lolu moy li nga xamanteni mom lañuy xaar ci yeen te heureusement lolé yéen a linga ci lépp li nga xamanteni président de la république jot def muy njariñu police nationale ngir liggéeyal askan wi ci wàllu yokk lim bi police amoon laata muy yegsi yokk limu jumtukaay yu xarala yi waaye tamit lim lépp luy oto yoo leen war a jëfandikoo ngir police gën a mën a def liggéeyam maa ngi leen di wax ni fii président la république dogal bi mu jël mooy gën ko yokk gën ko sax saxal waaye gën ko méngoo ak jamono ba li nga xamante ni moom la ñuy séentu ci yéen saa su nekk ngeen mën ko def parce que bu police doxee gendarmerie dox yeneen banqaasu état bi dox loolu mooy tax ñu nekk ci réew moo xamante ni dañ naan état de droit la gouvernement bi respecté loi bi citoyens yeneen yi respecté loi bi étranger yi nekk fii tamit respecté loi bi ndax dund en société du mën a jag mukk lu dul ku nekk xam nga sa warugar te doo ci bàyyi lenn ci taxaw boo xamante ni war nga ko ci taxaw taxawaay boobu nga xamante ni nag naka jekk ci lañ leen xamoon démb ak barki démb tey soog a ñëw mooy taxawaay bi nga xamante ni ndono li nekk ci seen ay yoxo war ngeen ko gën a te yéen ngi koy gën a dëgëral loolee nag waral jaajëf yi ma répété à plusieurs reprises pour féliciter leen ma koy baamuwaat si seen kanamu kilifa di leen wax ni Jitu réew mi félicité na leen premier ministre félicité na leen man mi félicité naa leen ak membre gouvernement bi yépp ci seen taxawaay mën ngeen ay sëgët yëkkati seen bopp dox ca kaw ndax lépp lu leen war ci réew mi yéen a ngi ko fay taxawee loolu nag moom la ñuy xaar ci police te loolu moom la ñu fas ak yéen di ko ngir liggéey bi gën a jëm kanam na ngeen jàpp ni liggéey boo leen def ba ñu kañ leen wala ñu rafetal ko xam leen ni ab tàmbali la yéen a ngi door lépp loo leen rafetal wala lépp loo leen def ci liggéey bu mucc ayib nangeen ngeen ko fàtte te jàpp ni li des seen kanam ngeen war ko dëgmal moo gën a doon ay défi ci yéen te bu fekkente ni def nga ba ñu ni ñëpp ba ñëpp d'accord ni liggéey bu rafet nga def amoo droit dellu ginnaaw te ginnaaw seen liggéey rafet na ñëpp gis nañ montée en puissance su police nationale ñëpp gis nañ ni boo leen taxawee xel yi dal ñëpp gis nañ ni boo leen génnee citoyens yi di leen xool xoolu ñii ñoo yor suñu kaaraange ñii ñooy ñi nga xamante ni duñu nelaw ñii ñooy ñi nga xamante ni yendaluñu fanaanaluñu di risqué seen ay vie di fàtte seen ay njaboot ngir ñoom loolee bu fekkente ni sacerdoce la mu doon loo xamante ni da nga ci engagé wu au service de son pays loo xamante ni la c'est permanent damay kontaan trop bu ma gisee et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux anciens qui sont parmi nous léeg-léeg àdduna day dox ba ma recevoir un ancien policier Bima ma ci recevoir Yagoul. Je wax ma ni ancien ou gémi mais ancien ou Biple. mais un policier un jour un policier pour toujours bi mu ci sama bureau mais bi saluer da ngay jàpp ni tey la tàmbali ci rang yi te ba tey mi ngi ci rang yi policier fii ak 30 ans à 40 ans vous leen génnee ci police jour où vous gën a policier on l'est dans l'âme et on le reste dans l'âme et aucune influence extérieure négative ne doit jouer sur vous, que ce soit sur votre mental ou sur vos comportements. Regardez vos chefs, vous leur obéisserez à tout ce qu'ils vous commanderont dans l'intérêt de la loi et au service exclusif des populations. Je vous remercie de votre aimable attention.